بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت والصلاة والسلام على من شرفه الله بالرسالة التي سمت وعلى آله وأصحابه الذين هدى الله قلوبهم للإيمان فاهتدت ورضي الله عن الأولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله أسوة حسنة إخوة الإيمان والعقيدة في كل بقعة من بقاع الأرض السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñuy déglu ci Safina FM quatre-vingt-dix-huit point ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baalu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu baal di ko ñaan li nu koy jaamu mu nangul ñu ko ca na mu toll te bañ koo nangoo ci ni ñu toll di ko ñaan itam bu ko nangoo mu laqal ñu ko fa yàq àggul ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen mbokkum taalibe alxaaji abdul aziz fall mo delu ci wat ci dara ji ci sen waxtanu tasawuf ki nek ci technique bi sunu mbokum bop sàmba si koy ñaanal yàlla tawfiq ñu ngi beral nuyo ak ziyaara suñu directrice su bopp di soxnañu ñu Maba ñaanal ko yàlla yàlla defal ko tawfiq yàlla defal ko taysiir mook mboolem ñu koy jàppale ci liggéey bi di berel nuyo ak nyan ñaan borom kër gi di suñu wëllëre bop di suñu xarit di suñu soppe di alhaji cerno hamidou ban yalla ko yalla defal tawfiq yalla ko yalla defal taysir ak najah tabarakallah ñu ngi woon ci alxubbul ilahi cofeel bu yàlla ma waxoon leen ni jaam sopp yàlla lu neex a dégg la ndax moo soxlaal yàlla mooy ki ñàkk moo soxla moom jaam kon war na mën a sopp ki nga xam ni mboolem lu koy jëriñ mi ngi ci loxoom jaam gërëm yàlla mënees na ko dégg ndax bu dul yàlla subhaanahu wa daram du sotti moom jaam bi waaye li ma daaneel nag moo di ñaari baat mooy yuhibbuhum wa yuhibbunahu ak radiyallahu anhum wa radu anhu ki nga war a sopp ndax moo yor sa lépp laata nga koy sopp moom mu soppal la boppam fa la mbaax yam ki nga war a gërëm ndax boo ko gërëmul sa dara du sotti ndax moo yor sa lépp mu wëlbati ku jëkk la gërëm fa la mbaax yem moo tax li Mawlana Sayid Cheikh Ahmad Tijani ci al Maktoum wax ni cofeel bala ñu koy xam ëllëg ci biir aljanna bala ñuy xam cofeel dayoom na mu toll ñu dugg aljanna waaye leneen lu mën a natt cofeel fii amul ndax تضايقت الأسباب لما تساءلت أحقا يقاس الحب بالمد والوزن فليس بمد أو بوزن وإنما يقاس بما في الخلد أمنا على أمن الشيخ نانا بني دوغة الجنة جس لي الله سبحانه وتعالى ترى لمبيند فمي كي لنجي دور من النقطة كفال نمطل فتبارك الله أحسن الخالقين مو ملني نك maa ngi woon ci yi nit war a mën a sukkandiku nangu boppam ci boppam nangu boppam ci yeneen mbindeef yépp ah, te loolu lu yomb la ndax ku nangu sa bopp ci sa bopp war nga mën a nangu sa bopp ci nit ñi yi nit war a mën a sukkandiku ba nangu boppam ci boppam nangu boppam ci nit ñi jox boppam yàlla subhaanahu wa wax ni doy na nit doy na nit lu mu war a mëna sukkandiku def loolu moo di su xalaatee cosaanam moom doomu aadama fi ko yàlla binde ak ni ko yàlla melal dana ko yomb moom nit bu nitee dana ko yomb mu nangu boppam ci boppam nangu boppam ci nit ñi te delloo boppam yàlla te mooy xuliqtum qablu min tinin wa sirtum muluka al ardi fi dunya ajibu ومن لم يشكر المولى كطين وإنسان فمولاه المجيب آه، مولانا سيد شيخ أحمد تيجاني سي المكتوم رضي الله عنه نانا خلقتم قبل من طين دوال السحل يونيت تسا تسان لن موي تسان بان من طين لاذب ban bu tooy taq mooy sa cosaan waaw koo xam ni mooy sa cosaan moom ban yàlla jaar ak yow fi mu jaar ak yow ba xëy wa sirtu mulukal ardi def la ngay buur ci kaw suuf yilif suuf ñu ni kon war nga mëna a delloo yàlla cant waaw te noo koy delloo cant moo di ajibu waaw mooy nga wuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ndawal yàlla la yàlla moo ko yónni pour mu woote waaw te ku ko topp waaw ku ko topp tabaarakallahu ahsanul xaaliqin mu teg la ci loxo yàlla loolu daal ku ci santul yàlla ci santul yàlla du nit waaw wa man lam yashkuril mawla ka tinin wa insaanin ku santul yàlla ci nekk ban ci cosaan yàllaa gi yow yàllaa gi yow ba nga nekk nit doomu aadama nee ci wuyuwul santoo ko ci fa mawlaahul mujibu moom subhaanahu wa taala wuyu ajaaba al ambiya lakum kama qad ajaaba rusula fa huwa al mustajibu yi ku ci nekk bëccëg sa bët xonq na sa bopp taxul waaye jaam yi yàlla yónni la ci ñoom nga dox seen digganteeg yàlla te li yàlla bëgg ci ñoom amagoo ko ci ñoom te xam nga sañ-sañu yàlla ak mën-mënam moo tax ku ci nekk bëccëg sa bët xonq na ndax xamaguloo fu yàlla di mujjeeg sa xeet waaye ku ci nekk ba nga jaaxle tàllal loxo yàlla ñaan yàlla wuyu na la te seen bopp taxul yéen lañu wuyul yéen la yàlla wuyul yéen la yonent yi ñaanal yéen la yàlla wuyul ko defee nag xuzu li ziinatikum muqaaman yajubu ilayhi minkum man yajubu waaw tabaarakallahu ahsanul xaaliqin teraa nga yàlla ci doomu aadama bind la ci ban bu taq tilim ci lañu bind sunu maam aadama alayhi salaam dem ba def ko yonent ku dul moom ñu bind la min nutfa toq ndox man yi boo xam ni bu bu bu bu laalee sa mbubb boo ci jullee wérul bu la laalee nga raxas yàlla jaar ak yow foofale ba xëy nga nekk nit su la ban taqee nga raxas ko te moo doon sa cosaan su la mani yu taqee nga raxas ko te moo nekkoon sa cosaan yàgg yàgg yàlla yàgg yàlla ba yàlla may la loo xam ni boo ko xoolee teraanga yàlla ci jaamam la waaye jaaduwul jaaduwul nit xamuloo jaaduwul nit di tudd yàlla ci turam bu nit xamee cosaanam na mu takk ak na mu tilime jaaduwul muy muy tudd turu yàlla ah, waaye yàlla teral la ba yegg foofu may la sañ-sañ nga di ko bàkk ci turam yi di ci woo tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin ah, nga dama dem ba tabaxal yàlla néeg ni ko sa néeg a ngi nii sa néeg a ngoog muy jàkka sa néeg a ngoog yow yàlla yàlla subhaanahu wa taala ni la waaw kaay ñu séddoo man ak yow pour nga yëg ni ba tey maa ngi lay teral te fasuma la yéene bàyyee teral ku moom néeg bi man ko fi bak ci man nga ne ko waw mu ni la boy dem ci neeg ba sañsel ba jekk waaw sañsel ba jek ah bo yegge ci neeg ba nga ni allahu akbar waaw sañsa bi delu ci yow ñu xamni ni la teral nga joge ci ban joge ci man yu ak ni nga mel tay, allahu akbar ji delu ci ci man nga bàkke ah ndax bu katan kàttan man yalla man man rek mako man min tinin ladib min mutfatin magi yow magi yow magi yow ba nga am kattan tuddu sama tour te do exploser jalala rabbin rafia xamulo ni do ma adama munul sante yalla wallahi nit munul sante yalla lu tax nit mën ni allahu akbar kabbar julli ba sëlman te du explosé ndax li mu tudd ëpp na ah, turu allah di ah, ismu zaat ah, yow ngay ban di nutfa nga am kattanu tudd ismu zaat te dooni tëll toj am na lu tax lu tax nit mën a résister boobu kattan xadaasa bi nekk ci tur wi nuuraaniya bi nekk ci tur wi nga tudd ko te tojuloo li la ko may mooy ruux yàlla ëx ci yow waaw bu dul woon ruux ku tudd yàlla toj waaw tabaarakallah ahsanul xaaliqin yàlla ni la xuzu li zinatikum muqaaman yajuubu ilayhi minkum man yajuubu waaw cheikh nee na yàlla nee na bu ngeen di dem sama néeg muy jàkka ja waaw xuzu li zinatikum sañse leen ba jekk waaw ah, tabaarakallah waaw ah, bu defee nag ngeen jéegu waaw ah, waaw nangu ngeen jéegu nag jëm ci sama néeg bi man yàlla waaw sañse bi dellu ci ngeen war a fàttaliku seen cosaan sant ma man yàlla allahu akbar ji dellu si ci ci man ngeen bàkke ma ko kañ ma ko ndax kudul man mënul loolu waaw ah, moo tax jàmm yàlla boo ko jàppee korwe rek demal tëdd nelaw moo ëpp tuyaaba jàpp ni jàmm yàlla dañu la ko sant sañu loo ko bañ rekk nga dem def ko te ba ngay dem di ci def melu noo ni ki xiif ñetti fan lekkul naanul ñu toggal ko plat bi mu gën a bëgg mu jëm ca waaw la muy sentir ak la muy yàkkamti pour satisfaire boppam yow mi jëm ci jaamu yàlla war nga yëg lu ëpp loolu waaw ndax bii ci biir bi la jëm moom lay feesal bële ci ruux bi la jëm moom lay alimenté waaw moo tax ma ni ku ma laaj ni ma julli gu nangu nuñ koy xamee ma ne boo xiifee ñetti fan lekkoo naanoo yëg-yëg ba ngay am ci sa bopp bu ñu la tegalee lekk nga lekk ba suur ndax même yëg-yëg bi ngay am walla déet mu ni ma déedéet waaw ma ne waxtu woo jullee ba sëlmal rek war nga yëg ni laata ngay julli fi nga nekkoon ak fi nga nekk bi nga jullee ba selmal bokkul waaw ku ko dul def rek da nga jàppe sa jàmm yàlla korwe waaw waaye cofeel ommatu la jëme la ci jàmmu ga waaw tabaarakallah ahsanul xaaliqin ya bani adam خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين خلل ترانغا يلا وخما سانسبي وخما لكي وخما نانغي واي خلل ولا تسرفوا الله أكبر الله أكبر yaa bani aadam yàlla ko wax ci alquran yaa bani aadam aadam fu ñu ko bind ci ban min sulaala ci ban min tiin ñun mu bind ñu min nutfa yàlla subhaanahu wa di wax ak ñun xuzu zinatakum inda kulli masjid barab bu ngeen tànn ba tudde ma ko wax ni mooy sama néeg ñu koy woowee jàkk bu ngeen fay dem am na nu ma leen bëgg gise man yàlla seen borom am na nu ma leen bëgg gise man yàlla seen boroom ndax cofeel bi tax ma sàkk leen ak cofeel gi ma leen woowe wax ni su ngeen may jaamu na ngeen ko teg ci cofeel googu am na nu ma leen bëgg gisee xuzu ziinatakum waaw waaw xuzu ziinatakum sañse leen ba jekk ah waaw bokk na ci dundal cofeel sa digganteeg yàlla waaw ah, ndax fonk sa bopp la ah, te sant yàlla la ah, waaye nekk ca atelier ba rek sa yëre takk tilim ba waxtu allahu ba jib rek nga fëxër fëxër yi daal di dem jàpp ba tooy ñëw ah ni da julli si waaw ñu ngi koy gisee ci jumaa yi te bu la benn autorité eh, joxoon rendez nga dem xalaat yére ba nga gën a cherle moom ngay sol pour wuy ji ko yàlla sopp la ba bind la sopp la ba teral la waaw ba bugg la gis ci néegam ci melokaan bu bokkul ak buy firndeel cofeel bi mu am ci yow nga am ko ci moom mooy dem ci néegam sañsel ba jekk waaw tuurool laj koloñ bu neex yiwal bokk na ci la koy bégloo xuzu zinatakum inda kulli masjid waaw ah, xoolal boobu teraanga ah, ah wakulu ah, lekk leen ci li teey ndax sama teraanga la ci yéen bëgguma leen gis ngeen tos kore waaw washrabu naan leen ci li teey ah bëgguma ngeen xiif loru bëgguma ngeen mar loru ndax sama cofeel ci yéen bi ma leen bind moo tax bu leen xiif bu leen mar bu leen rafle ah, lekk leen naan leen sañse leen waaye nag wala tusrifu ah, allahu akbar ah, baatu wala tusrifu ja ah, bu leen yàq bu leen yàq hmm. bu leen yàq waaw ñu ñuy yàq mooy lan waaw Ini nga bëgg naan nga bëgg naan wala nga bëgg lek tax nga jënd ba jënd lu la amalul njariñ yàq ya, la fa muy mujje mooy nga desal ka tuur ko muy wala bëgg sol sañse waa ah, tax nga jënd ba jënd lu la amalul njariñ yàq la ñaara mën a am nga bëgg lekk bëgg naan jënd jëfandikoo mu des nga tuur santoo yàlla santuloo yàlla sa borom ndax am na ku amul waaw am na ku amul te nga war ko geestu walla tuuroo ko nga forse ko waaw jël ba jël lu ëpp waaw waaw waaw jël ba jël lu ëpp ma ne yàq nga imaam maam góor toog ni ma déedéet yàqoo da ngaa yàqu ma ni ko wax nga dëgg waaw waaw nit bu lekk bu fër waaw dafa yàqu waaw ndax ni nit toll ci yàlla yàlla bëgg ko gis mu fër waaw nit dafa tedd ci yàlla yàlla daf ko sopp waaw yàlla daf ko sopp bëgg na buy dox jëm ci toilette sax mu dox ak sagoom waaw te ku fër nag ah booy jëmee ci sa doo doxe sago waaw moo xam danga waaxu moo xam da daw yiwul yiwul te sharia daf lay jàngal ba ci foofu ba ci foofu sharia daf la koy jàngal ni la boo jubee barab ba nga koy defee sax bul bul bul bul wogo say mbubb te àggaguloo te loolu yëpp li koy waral rek mooy jël lu jaaduwul nit dafa tedd yàlla ni booy dox jëm ci julli ga bul daw bul waaxu doxal dox bu yiw foo fekk imaam ba ànd ak moom bu la rawee nga mottali booy dox jëm fa ngay defaroo yu fa waaja pour sell mën a dem ci julli ga kadalika doxal dox bu yiw ku la gis xam ni am nga dignité waaw waaye nag am nañu ko mënul tabaarakallah ahsanul xaaliqin la bindkat ba waxoon Moustapha Manflodi am ñaari wëllëre mu toog rekk namm leen xelam nekk ci mu seeti leen ñëw ci kër kenn ki ñu ni ko ma nga mustashfa ba ma nga ci hôpital ba ñu ni lu ko jot ñu ni ko dafa feebar mu ñëw tiim ko yërëm ko ko lu la jot mu ni comme man daal biig dama lekk lu ëpp looloo ma indi fii waaw loolu gàcce la waaye dama masawu ko génn ñu naa jaar kër beneen xarit bi seet ko waaw mu ñëw moom it ñu ni ko ma ca hôpital ba mu dem seeti ko moom it fekk ko ci xaal bu doy waar yërëm ko mu ko waa diw lu la indi fii lu la jot mu ni ko man daal gëj lekk moo ma jàpp waaw ba feebar ma indi ma fii tey sànn mu ne ah ki yàlla dénk wërsëg wu bare mu war a reer jënd ba jënd lu ko ëpp ba mu ko tiimee di lekk fàtte na fàtte na li mu doon ci yàlla ba jël ca lu ëpp ba loola sabab tey mu feebar ba ñëw tëdd hôpital mu ni lii mu lekk mu ëpp ba tax mu feebar bu ko xaajoon ci digg ba jox ki amul dara ci amul lu mu lekk ay fan ba moom it mu ñëw hôpital bu séddoo woon ak moom la mu am rek ñoom ñaar kenn du ci feebar waaw ñoom ñaar kenn du ci feebar waaw manika yàlla da ko teral te xamu ko yàlla subhanahu wa taala daf ko teral te xamu ko kulu washrabu wala tusrifu تبارك الله أحسن الخالقين تكو دفنك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون nga ne fàttaliku leen seen cosaan fàttaliku leen seen cosaan ban ak toq man yu ba ngeen xëy ma def leen ngeen di nit taxaw pare guma ci yéen de ma bëgg ku leen xool sopp leen ma suturaal leen qad anzalna alaykum libaasan yuwaari sawaatikum waaw ku ne am nga ci yow loo xam ni boo sañoon kenn bu ko gis mag maag yéen maag ba ma may leen xelu ngeen wuti yére suturaal seen ñaawteef yooyu la yamuma ca wariisan bu la neexee nga def ko yére ba dàq ci yére yi na lew rek ah na lew na yiw nee na terewuma leen ko ndax sama cofeel ci yéen mu tax ki ko yàlla terale ki ko yàlla terale am lu mu lekk ba sant yàlla am lu mu naan ba sant yàlla am lu mu sañsee ba tabaarakallaa mu dajeek ay moroomam ñu ñee ko waaw waxtu julli jot nga ni doo dem jàpp ñëw julli ndax dangay bañ mbubb mi tooy walla mu froissé waaw dund di lekk di sañse waaye mbaam yi ci gannaaw dëkk bi ñoo la tane boo xalaatoon sa cosaan ak ki la indi fii solo loo xam ni jamaa la itam bu waxtu julli jotee waxtu jox yàlla li mu moom jotee doo am benn complexe waaw ah, nga dem ni ko allahu akbar waaw ah, mu dégg la ca kaw xam ni sant nga ko waaw ah, am na ñoo xam ni bu ñu nekkee ci xew waaw yiw waaw surtout soxna yi dañ ma baal waaw tabarkal la tabarkal la diwoo puudar diwoo puudar ba fa tabaarakallaahu waaw ah, mel ni kuy simbi waaw ah, waxtu julli jot nga ni boo jàppee julli sa puudar day dañ sa maquillage day yàqu waaw ah, walla sa musóor na ko tagale woon dootoo ko mën a defe noonu waaw ma ni xamoo lu tax ñu bind la waaw xamoo lu tax ñu bind la tee ngaa daw ca ba ngay am i tànk ndax bés dana ñëw maquillage bi keneen a koy jeexal sañse bi keneen a koy jël yow ñu lëmës la ci perkaal dugal ci pax waaw ku ko xam rek waajal sa bopp waaw moo tax ma leen keroog ku sopp yàlla soppi doxalin man la ko wax waaw waaw moo tax yàlla nee na nag wali baasa taqwa dalika xayr ki yàlla jox li mu lekk ba xiiful ñaaniwul yalwaaniwul jox ko lu mu naan ka daalika jox ko lu mu sañte ba kenn du ko gis yërëm ko hmm? yàlla nee na maa ngi lay xaar nag ca libaas ak taqwa ja ngi lay xaar ndax gore nga wala da nga lay xaar ndax gore nga wala goree di nga waaw solal ma mbubbam ragal yàlla moo ma dàqal te moy tax alal ji dula bewlo du dox sa digeunte ak yàlla moy tax sañse bi dula bewlo du dox sa digeunte ak jox yàlla la mo mom waaw dalika min ayati llah laallahum yadakkaruun mu tax tax ña ña ña doon wër kaaba ga di wër kaaba ga te jàpp ni def yaramu neen ni ñu juddoo waaw mooy tax yàlla bég ci ñoom waaw mos ngeen gis loolu waaw xër xër topp ndigal moo ko gën nit dana xër ba ba ba ba yéene yàlla loo xam ni jàpp na ni yàlla dana ca bég fekk na musiba la di wër kaaba gi di def tawaaf waaw ah, ñu dung waaw ah, su bëccëgee góor ñi la tuuru góor ñi la bu guddee muy tuuru jigéen ñi ku ne da ngay raflewu di wër ah. ah yàlla ni ku leen ko sant ku leen ko sant est noonu laa ko bëggee man yàlla parce noonu laa ko bëggee man yàlla waaw ah, ma leen ci cofel soppal leen sama bopp teral leen ah, ngeen bëgg teddadil seen bopp waaw ah, qul man xarama zinata allah allati axraja li ibadihi wa tayibat min ar risq ana ku leen ko sant ana ah, ku leen ko sant man xarama zinatallah ku leen tere ngeen sañse ah, ku leen tere ngeen sañse door a ñëw wëral ma sama néeg bi sama kaaba gi ah, dama leen sopp indi leen ci cofeel teral leen ngeen bëgg tedd di seen bopp mu dellu ca xuzu zinatakum inda kulli masjid kii dem jàkk sañsa ba jekk sañsa bi dellu ci moom julli gi dellu ci yàlla rabbul izzati wal jabarut ana ku leen ko tere wa tayibaat min al risq mooy li ngay dunde muy lu lew waaye ba mu lawee ba noppi nag mu nekk lu baax am na ñoo xam ni jàpp nañu ni ragal yàlla mu ngi ci di di di dunde mbiskit ak mburu mu wow waaw jàpp nañu ni fële ragal yàlla loolu mooy feeñal ragal ragal yàlla mukk feeñal ragal yàlla mukk mukk waaw ah, ah, waaw tabaarkalla tabaarkalla waaw ah, nee nañu ilimaan ja eh, am rek eh, eh, patron bu ko woon ni ko dama bëgg nga duggal ma xalwa dama am soxla soxla bu ma ñor bëgg nga duggal ma ci xalwa ñaanal ma sa borom mu ne ay ca loolu kay mën na nekk ah ilimaan ja ñëw ci kër waa ji daal di fatu ah, moom it jàpp na ni comme waa ji yàlla dénk na ko teraanga nit la jàpp na ni nit la ko daal boo may tegal ñam wi rek ñee teg ko ci bunt bi rek fëgg te nga dem ah tabarkal la ni ko damay woor guddi ba guddi rek lay lay mos dara aje nekk ku doy waar daal dem ca boulangerie ba seet mburu yu wow ya nga xam ni la moom lañuy ñuy yóbbul bàyyi ma yi mu ah, gannaaw imaam dafa ragal yàlla xam naa ni ku ragal yàlla moom du lekk lekk gu neex mburu mee koy gënal guddee rek mu indi ko mburu tegal ko fa euh, butéeyu ndox limaan woore ba jant bi sor ak ubbi fekk fa mburu mu wow ak ndox tabarkàlla ah leneen amu fi mu màtt mburoom ba xolam sedd nu góox ci ndoxam ay laata xalba gi jeex gémmiñ gi yëpp simmeeku ndax mburum woow mi waaw ah, na fekk xawma dafa doon ñaanal waa ji walla da ko doon ñaan <laughs> dama yaakaar ni mujj lu dul di ko ñaan yàlla di ko rëbb di man jë génn nag ak meram tabarkal la Ah, di waxtaan ak borom kër gi ba tisbar jot borom kër gi ni ko ah, doxal bok jitu julli ñu barkelu iman ji ni ko ah, baax na demal demal nga jitu ñu wax wax iman ji ni mukk demal jitu borom kër gi jité takusan jot borom kër gi ni ko iman xana di nga jité takusan bok ñu barkelu mu ya dama demal rek doxal rek borom kër gi jiite tàkkusaan waaye li ñu seetlu mooy bi timis laata jot imaam jël na deram lal ko ca kanam fas yéene jiite te kenn sant ko ko <laughs> ndeke am na lu mu nar moom ilimaan ji ki la waxtu timis jot rek ñu woote ñoo leen julli borom kër gi génn fekk ilimaan ca kanam mu ne ah lii de occasion la comme bëggoon nañu barkeelu ci moom tisbaar gi ak tàkkusaan gi mu gàntu timis gi moom xéewal la ah limaan ngeen ni ay ca liqaam leen ñu liqaam tabarkalla tabarkalla ay naka la ilimaan ji yootu fatiha ba ci wala daalin amin rek ku dégg arab la nag daal bàyyi fële alxuraan yàlla ji làkki arabam يا أيها الذين آمنوا لا تطعموا ضيوفكم خبزا يابسا <laughs> بل لحما طريا فمن لم يجد فبيضا أو سمكا ومن يفعل غير ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا <laughs> تبارك الله تبارك الله ايه يندي يلا laa tut'imu duyuufakum xubzan yaabisan ngeen amatee gan bu leen ko terale mburu mu wow waaw bal laxman tariya ko terale yàpp wu yàpp wu baax tabarkalla yàpp wu rafet waay ñu togg ko ba mu ñor waaw fa man lam yajid ku amul yàpp wa nag fa baydan aw samakan waaw nga defar omelette ngi nen aw samakan wala nga indi jën waaw dal yap ci gën yap yap ci gën amul nak neena nga indi nen wala nga indi jën muni waman yaf'al ghayra dalika ku def lu bokkut ak li nak faqad dalla dalalan baida ah, sanku nga sanku te gu reey reey ni allahu akbar ay rek borom kër gi xamni mom la iliman ah, du khulul wa tabarkalla tabarkalla motax tax lo xamni du wane ragal yalla ragal yàlla leneen la ak taqwa haahuna sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan wax waaw ah, joxoñ waaw ah, baaraam ba cox tollook xool ba mu ñu ragal yàlla fii lay nekk waaw ah, ragal yàlla tax nga ni doo sol mbubb mu baax doo lekk-lekk gu baax xamoo lu tax yàlla bind tax yàlla ni qul man xarama zinata allah آه، التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل أن ترى سانشي كل أن ترى لك لك قباخ آه، قل هي للذين آمنوا آه، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا واو ñi nga xam ni yéen a man waaw bu ngeen ko bokkeeg ñeneen ci àddina ndax teranga la teranga nag ki ma gëma ak ki ma weddi ñépp maa leen war a tereel xam naa toll noonu man yàlla waaw ah, sama mbaax a toll noonu ah, ah, waaw mbaaxu kenn yokku dara mbonu kenn wàññiwu ma dara ma bind ma moom kon bu may séddale sama teranga duma ci xool ki ma gëm topp ma ak ki ma weddi sama mbaaxa ni toll waaw قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا آه. آه. تبارك الله تبارك الله وإنك خالصة يوم القيامة آه. خالصة يوم القيامة أبو مرافق تقول غرافق ترانغ تبارك الله غمتلي من يم نفيت من نك الله يوم القيامة نك بعدين كبكو كن بعدين كبكو kenn yéen yéen a koy wéetoo fii nag ñi ma bind ñëpp laa koy séddale waaw waaye fële nag yéen laa koy beral loxo waaw kadalika nufassilu l ayat li qawmin yaalamuun waaw waaw kadalika nufassilu l ayat li qawmin yaalamuun waaw waaw ko déggul jarul ngay firi alquran ndax bis bu set nga firil nit alquran te yow mag koy firil dégguloo ko waaw tabaarakallah sanul xaaliqin waaw xoolal boobu teranga mbindeef mu jóge ci ban jóge ci tokk ndox yàlla tere la ko ñaari teranga yoo xam ni bu ci ne ëpp na ah, وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون يلا بوي فاتلي نيت توسانم داغي خامني بغنا دم لا نيت بلا نيت دي ناو آه، لي ني نان ديس نكو سوقي بلاي ناو آه، نيت بوين كو سوقي مو ناو إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال آه، من حمأ مسنون آه، فإذا ثويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين yàlla آه، خيرك rek mobiliser malaaka إني خالق بشرا من صلصال الله أكبر من صلصال من حمأ مسنون آه، آه، نين دال دمي بند بنديف واي مان كوي من حمأ مسنون من صلصال ñaar yi dal ñoko sekk sal sal ah, ban bo oo xam ni ban bu bobale xama la ban bu toy moy ciosanam waaw tooy ba xet ga soppeku bu lo xegne nga taf sa bakkan mu tega ci te masnun wolof wolof dana wax ni xeeñ waaw ba min salsaal min xama in masnuun waaw salsaal bi mooy ba ñu lakkee ban bi dañ ko lakkee ca safara ba mu wow booba yàlla jox na nit formam ba noppi waaw jële ko ci ban bu tooy ba ba xeeñ waaw masnuun boole ca waaw ku jubee xet gi ub la nga taf sa bakkan la jëlee ko ci xaala boobu lakk ko ba mu wow koŋ min salsaal allahu akbar waaw ah, fa isa sawaytuhu su ma ko joxee forme bi ma soxla man yàlla pour mu am ko moom nit ba pare wa nafaxtu fiihi min ruux yi waaw ah, ma ëf ca sama ruux faqa'u lahu sajidin ñepp yeen malaaka yi na ngeen ko rendre hommage waaw na ngeen ko sujudal waaw sujudu teral magal. waaw yooyu ñaar nit rek moo am yàlla pare ci moom ni ca ëf ruux ku dul nit ba ci malaaka ak mbindeef bu mën a doon seen ruux yàlla nga ko bind ci xuduraam bi muy wax dara ni ko kun fayakoon waaw kàttanam googu nga xam ni lu mu bëgg mu nekk du ca sonn waaw daka naan nekkal rekk mu nekk waaw waaw nit sa ruux ci loolu la ko yàlla bindee nekkal mu nekk nit rek la yàlla ëf ci moom ruux xanaa kon loolu màndarga ah, ndax moom la yàlla di indi ci kawkab bii muy planet bii ñuy wax al ardu suuf pour mu représenter ko te ku représenter ku toll ni yàlla sa connexion sa <clears throat> digganteek yàlla warul dagg digganteeg yàlla li nga xamni mo moo lay jokkaleeg mom warul dag te lolu ruh rek moko man ruh rek moko man ndax mo dëkk ci hadratul qudus mo fa joggé waaw waaw xaysul anwaar fa leer ya di balle waaw tasbih wa taqdis xam ken xamu fa ken du fa wax ludul dul lu ñuy màggale yàlla subhanahu wa lu ñuy bàkk yàlla subhanahu wa taala ruux fa la jóge waaw kon bu nit nekkee ci planète bii ñuy wax suuf war fi wuutu yàlla war na am loo xam ni lii mooy assuré diggante boobu ba du dagg te loolu ruux rek moo ko mën ndax yàlla terale ko loolu ñaareel ba moo di sujoodu malaaka ah ndax nit ko ne woon tey loo gën a ragal waaw ku la ni ragal naa lëndëmu bàmmeel rek malaaka tax ah, malaaka tax ni ko xissakat yi di jàngale ah, nan la Munkar ak Nakiir bu ñu la dencee ba noppi wan la gannaaw ki génne mbolde dóor la ko nga dugg juróom ñaari suuf lu ne ñu nettali ko ci ah, ah mu xëccaat la dóoraat la ko ma ne ah dana metti la tabarkalla la ndax ku ragal lëndëmu bàmmeel rek malaaka tax yaa ngay imaginer ni ku am kàttan la ku ñàng la ku soxor la ah? waaw waaw kooka nga jàpp ni mbindeef yi moo ci gën rëy ëpp ci kàttan gën ci soxor boo fàttalikoo ni sujoodal na la démb te defalagoo yàlla dara ah, ah? waaw nga caa mën sukkandiku xam ni yàlla bindul ku toll ni yow waaw nga delloo yàlla njukkal te moo di kaw suuf bu fi jaamu bu fi sujoodal kudul yàlla rabbul wax nit bu jaamoo lu dul yàlla rek réere na boppam waaw ndax ku malaaka sujoodal ca kaw te defalagoo yàlla dara bu ñëwee ci kaw suuf di sujoodal keneen kudul yàlla réere nga sa bopp jaratul ngay dund tabarakallah tabarakallah waaw ñaari teranga yoy wala qad khalaqna al insan min sulalatin min tin waaw summa jacalnaahu nutfa fi qararin makin gis nga teranga yi yep yàlla defal ñuko te waruko waru ko war nañ ci mën a sukkandiku dundal suñu cofeel ci yàlla ah, ki la defal teraanga wëlbatiku nga war ko sant mu sant la nga war ko sopp mu sopp la te moom dara waru ko lépp li yow la waroon waaye kooku war nga ci mën a sukkandiku dundal sa cofeel ci yàlla ah? yow sa dund sa nekk ah, dafa da dafa dafa sa am dafa daggan dafa daggan ci xàqu yàlla waaye waru ko ndax yàlla dara waru ci moom waaw ah, moom yàlla nag ak nekkam lu war la waaw ah, ki nga xam ni nekkam lu war la su amalee leneen loo xam ni nekkam warul mbaa xama ni toll تبارك الله أحسن الخالقين آه، موم يالا اك نيكام لو وار لا آه، موم نين دون جانغ آه، تبارك الله سين تيرم يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عن وخلفه لغيره بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال yàlla nekkam lu war la nekkam lu war la tabarakallah tabarakallah moo tax sëriñ cheikh wax ni wujudun laa yushaabihuhu wujudun wujudu llahi xalladahu lwujubu tabarakallah nee na nekkug yàlla wujuudu waaw wujuudun ak nekk la goo xam ni laa yushaabihuhu existence yàlla nee benen existence niroowut ak mom ndax lu existe ludul yàlla rek loola dafa dagan ci xàqam mu mu la ay mom nak existence am lu war la waaw ah, wujudullahi xalladahul wujubu waaw ah, kenn musul gis loolu waaw ah, tabaarakallahu ahsanul xaaliqin waaw ki nga xam ni nag moom ak nekkam lu war la ak dundam lu war la ñàkk dee lu war la ci moom ak am lu war la ci moom wiitoo ay melokaanam lu war la ci moom waaw lu fi nekk rek moo la fi indi ndax moo fi nekkoon ba fi dara newul te moo fi continuer nekk ba lépp dem bakku fi waaw yépp lu war la ci moom waaw ku mel noonu su bindee loo xam ni ak existence am warul mbaa xama ni toll waaw tabee ma ni toll tax mu ni moom Serigne Cheikh wa juudun fawqa maalil juudi kamman wa kayfan wa huwa razaqun najibu waaw tabaarakallah tabaarakallah waaw bee wujuud la bii wa juudun kee wa juud la ki juudu la bi firi tabe ak mbaax mu ni wa juudun waaw ak mbaax la ak tabe la waaw moom yàlla subhanahu wa taala teral googu mënu teral ak mbaaxam la ak tabeem la waaye mbaax la ak tabe goo xam ni fawqa maalil juudi kam man wa kay fan waaw ah waaw fawqa maalil juudi kam man wa kay fan mënu ko natt kenn mënu koo melal moom tabeeg yàlla googale ndax nattukaay yi ñuy natte ak tabe ak di ko melale melokaan yu ñu koy melale nee na juudullaahi googa fawqa ma nga ca kawam waaw waaye loolu nit war na ci mën sukkandiku dundal cofeelam ci yàlla yamu ca wa huwa razaqu najibu nee na moo yor wërsëg di ko séddale te it maanaam ku tedd la karim la na mu mel na mu toll lay jëflante jaamam yi nga gis ku dëkk ci di ko moy te du teem mu sedd la ci wërsëgam ah, kërim gaa tax waaw nag wa malakakum jawaadan kulla cheyin fa amsal kullu عن كرم ينوب شيخ نانا وملككم كل شيء واي جوازا يلا جيين تا بانبا يلا جيين تا نطفه با با نين خي تاخاو يلا جيين تا سانسه با يلا جيين تا ليك غا يلا جيين تا نانغا يمو تا وملككم كل شيء يلا موم لول لب تي كاو سوف ها آه. waaw waaye nag jawaazan dafa dagan ci moom warul kon war nañ ko sopp war nañ ko gërëm war nañ ko jaamu war nañ ko bàkk kilo la defal lépp te dara waru ko waaw wa malakakum kulla shay'in waaw moom loo leen lépp lu ne ci kaw àdduna bi lépp li fi nekk nit a ko moom nit lu ko yàlla terale waaye jawaasan dafa daggan waru ko moom yàlla waaw fa amsa al kullu waaw fa amsa ba mu mujj al kullu waaw nit ku ne yanuubu waaw nit ku nekk yanuubu di wuutu yàlla ci kaw suuf an karamin ci kaw teraanga bu ko yàlla defal ci kaw tedd nga bu ko yàlla defal waaw inni jaayilun fil ardi xalifa amsal kullu ñëpp mujj ku nekk yenuubu di wuutu yàlla fii ci kaw suuf waaye nag an karamin ah tabaarkalla tabaarkalla wa dhaaka wa dhaaka wa dhaaka alxubbu ajabu mahtadaytum bihi lilxaqi falajabu alajibu cheikh nee na cofeel googu leen yàlla sopp ba bind leen te waru ko wërsëgal leen ngeen di lekk lu teey di naan lu teey di sañse te waru ko wëlbatiku def leen ngeen di buur yilif li ci kaw suuf te waru ko ah, nee na ajabu mahtadaytum bihi lil xaqi nee na yi ngeen mën a sukkandiku pour jub jubóog yàlla seen boroom nee na cofeel googu moo ci gën a yéeme waaw loolu budul cofeel mënul lekk yi nit di mën a nat di ko xool pour jubali ci yàlla gindeeku jox boppam yàlla sopp yàlla nee na cofeel googu moo ci gën a yéeme nee na sax moom cofeel googa fal ajabul ajibu mooy kéemtaan bu bu bu bu bu yéeme bi wax na dëgg yuhibbu liman yuhibbu bila xisaabin wa daaka axaqu maxtasaba alxasibu xoolal loolu rek yuhibbu لمن يحب بلا حساب آه، وذاك أحق ما احتسب الحسيب قال اللولو آه، نت منول سنت يالا نتلوك لمكو دفل آه، للي يالا ديني للي يالا دفل يحب لمن يحب بلا حساب moom yàlla sopp na képp koo xam ni sopp na ko moom yàlla subhaanahu wa taala yéene ko teraanga boo xam ni kenn mënu koo natt kenn mënul xam nu mu toll waaw te loolu yàlla subhaanahu wa taala yéene nit yéene doomu aadama defal ko ko say cheikh nee na xaqu maxtasabal xasibu ah moo gën a baax waaw moo gën a yel yey moo gën a moo gën a yellu waaw fa tabaarakallaahu ci mboolem xeetu yiw yi nga xam ni yàlla fàggul na ko jaamam waaw waaw tabaarakallaahu ahsanul sopp la bind la ci cofeel di la teral waaw te lu mu la teral xeeb ko يحب لمن يحب بلا حساب لي يلا يين لي يلا بغل لي يلا دفل منو كلم ذاك احق ما احتسب الحسيب ديلوكو يمشي ندخ بوكو بوكو خلاتي dundal cofeel sa digganteeg sa boroom ah xayaatun fi lxaqiqati yartadiha li mahbubin yuhabibuhu lxabibu mooy waral nga dund dund goo xam ni yartadiha dund ci xaqiqa dund goo xam ni yartadiha boobu dund moom la la yàlla tànnal moom la yàlla gërëm kan la ko tànnal li mahbuubin ngir soppeem moom yàlla ah waaw ah, ah. yu xabibuhul xabibu waaw ah, isaan kenn mësul gis lu ni mel waaw tax wallaahi yaa ayyuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim sëñ Cheikh nee na bi ko yàlla di wax bu doon kuy jooy la ñu ni rangooñam daanu na ci dëndam yàlla jaar ak nit li yàlla defal nit nit wëlbatiku won yàlla gannaaw tënku ci leneen di fàtte fàttelu yàlla ah di jéem a yàlla di ko jéem a dàq ni yàlla amul yàlla ni nit lii kañ la la fi dal kañ la la fi dal ana ku ma wuutu ci yow yaa ayuha al insaan maa garraka bi rabbika al karim alladi xalaqaka fa sawaak fa addalak waaw fi ay suratin ma shaa rakkabak tabaarakallah ahsanul xaaliqin حياة في الحقيقة يرتضيها دندو جوجو للا يالا تانال للا يالا تانال يوم نغا خمني يوي سوبيم يوي جامم تبارك الله تبارك الله سن الخالقين مني نك وكل سعادة في الحب ذكرى وأسعد ذكريات لا تغيبوا cheikh nee na wa kullu saadatin bépp texe bu nit texe tedd bu nit tedd rekk ah nee zikra souvenir la waaw xob bi ci cofeel googu nga xam ni moom la ko yàlla sopp allahu akbar dara nga bu la gane si yàlla daf la cax daf la ciy fàttali waaw souvenir la lay fàttali cofeel ga nga xam ni mooy cosaan gi tax yàlla bind la wa kullu saadatin fi lxubbi dikra waaw waaw wa kullu saadatin bépp tedd nga zikra souvenir la fil xub bi ci cofeel ga nga xam ni moom la la yàlla subhaanahu wa taala soppoon ba bind la waaw te nag xaw ma xamul man sëñ Cheikh waye wa as'adu zikrayaatin la taghibu amna souvenir yo xamni ni kenn du fàtte ndax du rir tabarakallah tabarakallah wa as'adu zikrayaatin la taghibu amna souvenir yo xamni ni kenn du fàtte ndax du fatu ndax moy souvenir yi dak ci souvenir yi te moy leg leg nga ah, fatali ku cofeel gi la yalla sop ba bind la ta waruko ah, sa ga na mu tàqe na tilime yalla gi yow ba jele la ci ah, ban bu tak xegn yalla gi yow ba jele la ci waron la meuna bayyi nga ni dung di dox ni rek ma yi yalla yo yow ba sangal la sa ñaawteef waroon ca yem mu ni la seetal yére ya gën a rafet na taaru na lew na yiw ah yàlla ak yow yàlla yow nga wëlbatiku liggéey parfum boo xam ni boo ko tuuroo koo romb mu ni la sa parfum bi neex na foo ko jëndee ah, nga war a fàttaliku sa cosaanu ban bu takk bu tilim ba xeeñ ba waaw ah, ah, wa asaadu zikrayaatin la taxibu na loo xam ni ku ci tënk sa bopp waaw sa cofeel ci yàlla bés bu set muy gën a dund fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin ah moo tax nag wa man lam yashqa fiiha fa huwa tiflun wa ashqaahum li asaadihim tabibu waaw tabaarakallahu ahsanul xaaliqin ومن لم يشق فيها فهو طفل الشيخ آه. نينا المحبة تفل آه. نينا كومو كو كومو تسكرل نينا كومو ألاقول آه. فهو طفل نينا خالنغا نينا كو تفل ألاقول رك خالنغا تبارك الله سلام الخالقين تيتل بوبو وخين رك ku cofeel alagul booba xale nga ah. Ah. bu dee jong ma rekk ngay sopp ba mu alag la rombe dàll bu rafet nga ni sama ndaw sa la jekk rombe tisi bu rafet nga ni sama ndaw sa la jekk waaw ah, lu baax loo romb ni ci sama ndaw sa la jekk alku nga alku nga waaw mu kallaf muy doxi farata te lu mu romb lu rafet mu geesu xool téen fu ne mu dugg fa ndax yéene ka ndawam sa yàlla bu fekk nag newul ci poos bi dafa yéene waaye amul te la xaw la ndof la ah, fa la ndof yam ah, ndax da nga jënd jënd ba jënd li ci àdduna bi yëpp te yoroo dara joxewoo dara waaw lu ne nga ne su ma ko amoon ba neexale ko sama ndaw si ndax cofeel waaw cofeel moo la alak moo tax wa man lam yashqa fiiha fa huwa tiflun waaw ah, ah, cofeel sëñ Cheikh nee na ku mu alagul xale nga ah, xale nga xale moom du xam baleeru dara waaw waaye nag li ci yéeme mooy wa ashqaahum wa ashqaahum tabibun li asaadihim <laughs> waat naa ci yàlla ni sama góor gi daal fi muy waxee doy na war waaw yebu ñu mbindam de nga ne fa di tiitaru di sagu nekk fa di tiitaru di sagu ah, fekk géew ba cofeel fàdd ñépp ba ñu daanu géew ba cofeel alag ñépp ba nu alku yow nga ni doo alku waaw ah, nga ne yow yaa cay mucc yow daal yaay mucc yaay fexe ba yoway eh, yoway ki ci alkande gi sëñ Cheikh nee na wa ashqaahum tabibun li asaadihim nee na cofeel alag nee na yow moom mooy sa docteur boo feebaree moo lay faj maa la ko wax la tabaarkalla la ku soppul yàlla doo am dara waaw ku soppul yàlla doo dem fenn waaw tax cofeel fa cofeelu yàlla alag ga ñëpp na la alag waaw na la alag yow ma alkool yaay yaay yaay yaay mujj nekk docteuru ña alkool man maa la ko wax waaw yow ma alku yaay mujj nekk doktooru ña alkuwul waaw cofeel cofeel waaw wa man lam yashqa fiha fa huwa wa ashqaahum li asaadihim tabibu waaw cheikh nee na daal ku cofeel alagul xale nga ndax xale du xam valeuru dara waaw dafa nek nak di titeru nan mom ñu ciofel alak du ci bok ah waaw wa ashqahum yow ma nga xamni ya ci gëna ya ci gëna yaa ya ci gëna alku ndax ciofel neena tabibu yaay doktoram am wallahi ndeysaan waaw wa ridwanun min al mawla nasibun wa khayrun كله هذا النصيب الله أكبر ورضوان ndeysaan sopp la ba noppi gërëm la boole ci yuhibbuhum wa yuhibbunahu radiyallahu anhum wa radu anhu moo tax mu ni wa ridwanun di ngërëm gannaaw cofeel gi la yàlla sopp boole ca gërëm la wa ridwanun di ngërëm boo xam ni nekk na nasib ah di cër minal mawla bu jóge ca yàlla sunu borom mu séddale ko te yaa ko waroon sédd ah tabarkalla tabarkalla waaw waaw Cheikh nee na wa hada nasibu waaw kulluhu xayrun allahu akbar moo tax mu ni wa xayrun kulluhu hada nasibu waaw jëlal ma waaw gi wa hada nasibu kulluhu xayrun waaw waaw te nee na cër bii wa hada nasibu cër bi la yàlla sédd kulluhu léppam khayrun yiw la sopp la te yaa warona waroon a sopp gërëm la te yaa warona geureum ni cër la xamni kulluhu khayrun taqarrubukum lahu fadlun azimun wa rabbukumul mujibu هو القريب taqarrubukum lahu waaw ah, ah, nee na nit di def yitte di def effort waaw ah, di jéem dab waaw bëgg-bëggu yàlla subhaanahu wa ci moom di dundal cofeelam di jël jëf ju yiw di ko teg ca kaw cofeel ga pour lan taqarrubukum lahu waaw waaw jéem a jagañ jagañul yàlla ah yàlla fadlun azimun yàlla ngëneel lu mag la ah wa rabbukumul mujibu huwal qaribu ah yàlla moom mu nga xam ni ah boo wootee moo lay wuyu nee na huwal qaribu nee na mooy aji jageñ ji waaw yow jéemal rek jéemal rek jageñ jageñ lu yàlla waaw tabaaraka ma ahsanul xaaliqin ko wooye mu wuyu la ndax ku la jagañ la bu ngeen ca boolee bi axlaaqin xawaaha ma tatibu bihi alqulubu ngeen ca boolee nag taxalluqukum bi axlaaqin xawaaha ngeen di jéem a forger seen personnalité ah jéem a soppi seen jukkoy bopp di jéem a toxu dem ci jukkoy yàlla ah bi axlaaqin ah, jéem a melokaan ay jukko yoo xam ni ah, ah ay jukko yàlla sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan wax taxallaqu bi axlaaqillah axlaaq la wax nee ah. na ngeen seet jukko ya nga xam ne ay jukkoom la yu mu tànnal boppam ngeen di jéem a góorgóorlu pour jukko yooyu nekk ci yéen fa atyabu ma tatibu bihil qulub waaw waaw nee na dalal xel di teeyal xel di teeyal xol di ko dalal waaw nee na mooy ngay jéem a góorgóorlu waaw di jéem jukko woo jukko yàlla subhaanahu wa taala waaw nee mooy dalal xel wala bok li dalal xel yep neena mom mo ci upp doole wa tabarakallah ahsanul khaliqin ko defé nag tofel tofel moy waaw cofeel mooy cosaan bi waaw sallallahu alayhi wa sallam جل أنس رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم نانا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما آه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره an yuqdafa fi nnaar sallallahu alayhi moo ko wax waaw na ñett daal ku mu nekk ci yow waaw ah, di nga taqamtiku caf kay ngëm gëm yàlla waaw ah, xaw ma ku ko yëgul waaye yow di nga ko yëg di yëg neex neexu bi nekk ci gëm yàlla ah, ñett ku mu nekk ci yow da nga yëg guu boobu ñu ni ko ban ak ban yaa rasulallah waaw mu ni an yakuna allah wa rasuluhu ahaba ilayhi mimma siwahuma soo demee ba natt sa bopp du mu wóor la ni yàllaa la gënal sa bopp waaw yombul de <laughs> ak jafe dem ba yàlla gënal la sa bopp foofu la nit di dee tàggoo nga ak sa bakkan mooy waral looy def ngir sa bopp bu àqu yàlla jotee nga fàtte sa bopp dem jox yàlla xam mooy waral bu cause yàlla taxawee dëggu yàlla taxawee laaj bakkan waaw dootoo xam lu neex ci dund natt sa bopp dem ba mu wóor ni yàlla la gënal sa bopp natt sa bopp dem ba mu wóor la ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gënal sa bopp nee na mooy benn bi waaw ah, yombul de waaw ah, yombul bare na ku naan yonent bi rek laa sopp ah, te la waaja waxoon moo ci nekk sayid ibrahim ibnu adham wa daaytum mahabbata rasulihi sunnata waaw ah, yàlla bi rek laa sopp yonent bi rek laa sopp te nangu woo roy sunnaam cofel ga du dëgg ah, ah, du dëgg daal nee ku dem ba natt boppam ba mu wóor ko ni yàllaa ko gënal boppam ah la xaw ko yonent bee ko gënal boppam loolu loolu saxaaba yi misaal lañ ci ah ni soxna neexe ci xol ni doom neexe ci xol ah dund ni mu neexee ci xol ah, ànd ak yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàkkarloog al mawtul ahmar ah, deegu xonq deegu bees tàq jàkkarloog noonu yàlla mu wóor la joxe bakkana fi sës nga gis saxaaba yi kenn ku ne di tëb di dal ah waaw ah. fas yéene joxe bakkanam ngir cause yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah. ah fàtte nga soxna sa nga bàyyi sa kër fàtte doom ya nga fa bàyyi fàtte alal ja nga fa ba ñoo ñu cofeelu yàlla yonent bi dëgg la ci ñoom yàlla leen gënal seen bopp yonent bi leen gënal seen bopp wa an yuhibba al mar'a ak nga sopp nit waaw nga sopp nit te jëmmi yàlla tax waaw soppoo ko ngir alal ju lay jox soppoo ko ngir intérêt booy am ci moom déedéet danga ko sopp te yàlla tax waaw uhibbuka lillah waaw dama la sopp te yàlla rekk a tax gàlluma ci benn intérêt yombul yombul yombul man maa la ko wax jamono ji ñuy dund di jamonoy intérêt téeméeri nit yoo gis ñu naan dama sopp diw dama sopp diw bu ca amee ku cofeelam yàlla rekk tax kenn lay doon bu amee laa wax da kenn lay doon waaye quatre-vingt-dix-neuf yëpp intérêt tax waaw fa gisatul la leen la la leen dem seen yoon maa la ko wax ah waaw waaye su sa booy sopp nit te yàlla tax yàlla rekk tax da ngay mel ni ñi yi daan jëflanteeg yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw gis sahabi bu taxaw ni ko nafsi fidaun laka ya rasulallah yonent bi yow loo dund doyul waaw loo dund doyul waaw yàlla naree gàttal sa fan na jël samay fan boole kook sa bos nga dund ndax su dund njariñu jaam yi la waaw nafsi fidaun laka ya rasulallah ah nga gis góor ga ah sama góor ga sayduna abu bakrin as-siddiq radiallahu anhu ah xool yonent bi rek ndeysaan di ko xool rek ko xoolee bët yi taa xool bi di tëf tëf tëf sànn ñu ne yonent bi ñett rek a ma saf ndeysaan waaw julusi bayna yadayk wa nadari ilayk wa infaqu mali alayk waaw yonent bi ñett rek laa am soxla man aboubacar julusi bayna yadayk fu ma toog rek yëg ni yow lay wettalikoo tabarakallah ahsanul xaaliqin wa nadari ilayk fu ma toog rek sama bët bañ a teggee ko ci yow fa tabarakallah ahsanul xaaliqin wa infaqu maali alayka boo soxlaa ma fàtte sama soxla bopp lu mu am biraas sama bopp jël jox la kooku yàlla la àndeek moom kooku yàlla la àndeek moom waaw moo tax bu weesoo yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën moom abu bakrin radiallahu anhu ci mbindeef yi hmm? cofeel sopp yàlla waaw ci la affaire bi nekk de abu hurayra radiallahu anhu nee na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni yàlla nee na ko moom yonent bi man aada lii waliyan faqad aadantuhu bil xarb waaw man aada lii waliyan waaw ku ma noonul sama soppe man yàlla topp te moo di waliyullah ku jox boppam yàlla yàlla téyal ko léppam waaw la nee na ku ma noonul sama waliyu faqat adantuhu bil harb déclaré naa la guerre mu ni ko lu tax mu ni parce que jaanam wàcc na jox na ma la mu am ma téyal ko li mu am man yàlla waaw wa ma taqarraba ilayya abdi bi cheyin ahaba ilayya min adaa'i ma aftaradtuhu alayh tabaarakallah waaw waaw mu ni ndax sama jaam defaluma luy tax ma sopp ko xëcc ko mu jegeñ ma lu ma dàqal mu defal ma li ma ko sant li ma ko sant man yàlla mu defal ma ko waaw nee na jaam defaluma lu dàq loolu ci man waaw mu ni waaye nag waaw am na ñu am mérite bu ñëpp yemee cër am ñu gedd seen bos ah, ki ma defal li ma ko sant te xam na ni lu ko war la mu def ko ba mu ba mu sotti waaw ah, mu jël ci coobare boppam nag loo xam ni moo ma ko yéeneel boppam man yàlla mu defal ma ko waaw ah, wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawaafil waaw xatta uhibbahu waaw def farata ba noppi teg ca nag di naafila ah, di naafila bu sama ak mëtee it du bëgg a bàyyi ndax cofeelam ci man ndax xalaat fi ma jaar ak moom cosaanam ba fii mu toll moo tax bu farata yi mëtee it mu am yéene boppam jël ci naafila yi di dolli rekk di dolli rek di dolli rek yàlla nee na ca nekk ji ca nekk xataa uhibbahu waaw ah, ba ma xëy nag soppal ko sama bopp waaw ah, fa ida ahbabtuhu kuntu samaahu waaw ah, bu ma ko soppee maa koy abal dégg waaw ah, maa koy abal nopp waaw lu ñu mun muni rek waaw ma jottali ko ko maa la ko wax waaw la yàlla waxoon yonent bi ñu ko demal tëdd nelaw boo sonnee <laughs> maay veillé man yàlla waaw man du ma gëmmentu yow nag nit nga dafay li la war demal tëdd nelaw may veye li naa feq yéeg yëfër yi fanaane ràbb ba bët set lañ ca wax ak lañ ca denc ci seeni xol maa la koy nettali <sighs> tabaarakallah ku bëgg nopp lu joxal sa bopp yàlla la nee bu ma la soppee abal la nopp waaw ngay dégg lu kenn dul dégg wa basarahu alladi yubsir bihi waaw abal lëbët waaw ngay gis lu kenn dul gis waaw wa yadahu lati yabtish biha waaw yena abal la loxo waaw tabarkalla tabarkalla waaw nga mën ci lu benn loxo mënul waaw wa rijlahu lati yamshi biha waaw yàlla nee na mani la sëñ Cheikh nga ko firi woon ni tollooleel sa mbagg ak sama mbagg yàlla koy wax jàmbi tollooleel sa mbag ak sama mbag nga sànni mu yegg fa fa fu kawe sa njort ak sa yéné ñu défé ne yow fekk na man yàlla ma sànni wa ma ramayta id ramayta walakin allah rama wa yadahu allati yabtush biha wa rijlahu allati yamshi biha dem ci dem ba ma abal la tànk man yàlla wa in sa'alani la u'tiyannahu ne dem ba complicité am sama diggante gi yow waaw ah, ba boo ma ñaanee du ma la tànqam lu loo ma laaj ma jox la ko waaw ah, ah, waaw wala in ni la uidannahu waaw waaw balaa sa bët xonq ngay xalaat waaw waaw ngay xalaat waaw ndax dinaa la xettali yàlla nee na ma dikk waaw tabarkal la tabarkal la lu koy waral sopp yàlla di jëfal yàlla jël jëf ja teg ko ci kaw cofeel nga ki julli farata wàcc na ko bu fa desee di naafile sopp boroomam a tax tabarkalla tabarkalla tabarakallahu ahsanul xaaliqin mbokk yi xam naa tabarakallahu balaa ñuy tëj sunu waxtaan ñu ngi ànd ci turu Safina FM turu directrice bi mboolem ñi fi liggéey ci turu borom kër gi di jaal al umma al islamiya di jaal réew mi sunu wayjuru bopp sunu sang di sayid cheikh sidi maxtaar mbakke di ñaan yàlla subhanahu wa taala fa mu nekk yal na ko dàqal fii mu jóge yal na ko yàlla subhanahu wa taala wonale ak nit ñu tedd ñu baax ñi mu wuutu woon ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallah ahsanul xaaliqin mu nekk perte boo xam ni dafa dal ci kaw umma islaamiya bi waaye ña ca ëpp luñ ci yëg ci tiis moo di Sénégal wa ñu ngi koy jaale ñépp mboolem kilifa diine boo xam ni bii tabaarakallaahu yaa nga bokk ca maam Mawlana Xadim Rasoul di ko jaal mbooleem kilifa diine bu nekk ci réew mi ak tariqa boo mën a askanoo di ko jaal tabaarakallaahu njiitu réew mi son excellence président Macky Sall ak mbollem nit ñi nga xamni tabarakallah ni ngi yeewoo ci suufu Sénégal di ñaan yàlla subhanahu wa taala yalla yàlla yeesal yërmande yalla yàlla yok leeram di ñaan fa tabarakallah li nga xamni liggey nako fi yalla ko yàlla def muy leer di barke yàlla yobul ko ko tabarakallah dugalal ko ko ci kontam ya ba nga xamni bu yeggee la muy wax mooy yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin tabarakallahu di wax نيغي waa sénégal ñu ngay dem ñu ngay mettit lu sama dem ñu ngi koy tiislu ñu ngi koy naqarlu nit ñaa ngay yàlla terale kon ñëppay ànd di ma reetaan di ma réel di ma bégle tabarakallah am nañ ci yaakar yan na ko yàlla def euh ñu tëje rek ñaari kaddu yu ñu dégg ci mom yoo xam ni su ko fi bàyyi woon doy na réew mi sëkk orientation tabaarakallahu maa ko dégg mu ni ku yaruwul doo yor dara waaw ku yaruwul doo yor dara ku amul teggin doo teggi dara waaw tabaarakallahu ñaari baat la yoo xam ni ëmb na njariñu àdduna ak waaw ku yaruwul doo yor dara ku tegginuwul doo teggi dara waaw koo xam ni kii nag dundam lépp enseignement la tabaarakallahu su wonee gannaaw faw mu nekk perte waaye fa lillahi alhamdu wa shukru bi nga xamee ni bàyyi na fi kàddu bàyyi fi jëf yoo xam ni ku bëgg yiw mën nga ci sukkandiku ba roy ko ca tabaarakallahu ñaanal yàlla ki nga xam ni tabaarakallahu moo ko wuutu ci liggéey bi yal na ko yàlla kàttanal yal ko yàlla may wér moom itam yàlla may ko mu li ca yéeneem tabaarakallahu eh, ñu ngi koy jaar réew mi yépp di ko jàll nag xaasatan suñu mbokku taalibe ñi nga xam ne askuna ci tariqa al muridiya di leen masawu te di leen xamal ni li arab wax moo ci nekk tiis bu ko ñëpp séddoo mu wayef ah, ñu xam ni tiisu yu ñu ko ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom rek waaye dana ko bokk ak mboolem kuy yeewoo ci réew mi ngay jullit nga nàkk ñàkk nekk jullit tabarakallah ku ne jël nga sa wàll ci tiis wi tabarakallahu la sallallahu alayhi wa sallam wax moo ci nekk يالله جل نواي لمو جل موكو موم كونك فلله الحمد فلله الحمد فلله الحمد تبارك الله تطورو سفينة FM ننكو يجال نيب يلير مساو أكسنا ني فينا خميني في لسونو وقتو جيخي كي نوان تي دارا جي مودي سن بوكم طالب الحاج عبد العزيز فال نوني يالله ماي موتشك موتشي لا ويرك ويرلا دوندك دوندلي اللهم ارحم عبادك وبلادك وصلى الله على الرسول وعلى آل الرسول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته